Give me a bottle of asalaamaaleykum mbokk yéen ñu internet luttetv.com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare tey samedi 27 mars 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay yi comme ni ngeen ko amee chaque jour ñu ci ànd ak waa Vice FM ba ci Gambie mbir Kilaan FM ci Saalum di jëmoo ak Babacar ngi leen nuyu bu baax di nuyu seen auditeur di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Abdou Dramé doomu ndey Babacar Sarr ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare di nuyu suñu père Idi John borom Gambie ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di nuyu suñu yaay Adja Adja Gass yaayu Lirou Diane ak Aline Seyde yaayu Lamine ñu ngi koy nuyu bu baax baax di ko ziyaare ñoom Jali Jami ñoom ñëpp ñu ngi nuyu di leen ziyaare ñu ñëw ci journal sunu lamb journal sunu lamb ak journal sunu lamb combat mu yi tamit danañu fësalal ñaari mbër yooyu mel ni nag ñeenti mbër yi moom ñëpp dañuy jàkkaarloo waaye ñaar ñi dañuy dem ci benn télé yeneen ñaar ñi dem ci beneen télé beneen beneen groupe bi nekk kër Gaston Mbengue mu mel ni daal triplex moom looy am ngoon incha allahu rabbi ñaari mbër yi maanaam Modou Anta ak ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène dañuy dem 2STV wala ñu dem ITV Lac de Guiers ak ki nga xamante ne moom mooy génn Diène Kaïré dem 2STV waaye journal suñu lamb daal guerre de moo la ko jàppee. kon xaar leen ko ngoon incha allahu rabbi vingt une heure diggante Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène gannaaw ba ñu waajee ba pare ku ci nekk rek ñëw jàkkaarloo ak askan bi jàkkaarloo ak ay supporters wax far nga toll ci waajtaay bi pare nga wala pare woo ñaari moom dafa mel ni pare nañ ndax ku ci nekk wax nga jox sa morom mu wax muy diggante Diène Kayra ak ki nga xamante ne moom mooy Modou Anta mooy zal ba tamit journal sunu lamb ci xale mag Iba Kane xëy di ko ci laaj xalaatam mu mel ni moom jàpp na ni combat boobu diggante Diène Kaïré ak Modou Anta kenn du ni bu jaaduwul la ndax boo xool ñaari mbëri ñoom ñoo yem ci taxawaay ñoom ñoo yem ci tolloo ci ci ci ci taxawaay ñoo yem ci poids ñoo yem tamit ci li nga xamante ni moom mooy physique moom zal ba loolu la jàpp moo tax mu ni combat boobu amul ko sañ a wax nekkul combat bu waaye nag nee na Diène Kaïré moom am na client boo xamante ni client bu réer la ndax Modou Anta ndaanaan la wan na boppam bu baax a baax a baax waaye Modou Anta tamit la la zaal boo jàpp moom mooy nekk na mbër bi nga xamante ne moom mooy njëkk a attaqué lu mën a xew jàpp na ne moom Modou Anta mooy kii njëkk a attaqué ki nga xamante ne moom mooy Diène Kaïré lenn la nga xamante ne bu ko attaqué ba pare moom la mu jàpp daal instant bii. ca ca Modou Anta moom mooy du reculer ki nga xamante ne moom mooy Diène Kaïré amul lu ko jaral maanaam àdduna du jaralu ko moom mooy reculer ki nga xamante ne moom la jàpp ci Modou Anta ba mu jàppee yooyu yëpp jàpp na ni Modou Anta moom mooy légèrement favori maanaam ak lu mën a xew dañuy jàpp ni Modou Anta moom bu fekkoon daan na du bett du ñu bett waaye nag ci légèrement la ko jox Modou Anta moomu noonu nag moom yéen waa waa Thiès ñu ngay mobiliser bu baax a baax a baax pour nekk ci ginnaaw pour le jour ji mu ñëw wane boppam Diène Kaïré nag moom muy dajal am na koo xamante ne da ko daan gunge waaye combat bi moom da ko fekk ci këru dëgg yàlla na ko yàlla yaram muy Kamal Kamal Salamé moom tamit Diène Kaïré nee nañ combat bi dana ñëw san Kamal boobu noonu waaye Pikine nag foo tourné combat bi ñuy waxtaane mooy diggante Eumeu Sène ak ki nga moom mooy Lac de Guiers numéro 2 waaye wala boog Eumeu Sène la moom mi nga xamante ne moom mooy seen mbër war a jàkkaarloo ak Lac de Guiers numéro 2 le 4 avril balaa le 4 avril journal sunu lamb ci xel mag Ibakan rek tàllal na keneen micro muy Ibrahima Mbaye coach écurie pour le choc du 4 avril. moom lam ci jàpp daal mooy defet moom arrangé ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène jàpp na ne nag combat soog la ku ci nekk am nga intérêt ba nga xamante ni mooy nekk ci combat bi waaye defet arrangé wul benn yoon waaye combat moom moom Ibrahima Mbaye jàpp na ni mën na durer ba cinq minutes ma ne ko cinq minutes yooyu noonu mën na faa ëpp sax waaye nag ak lu mën a xew nee bagaar moom moom nekkul bagaar boo xamante ne bu tar lay am bu tar lay doon ci diggante Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène dañuy xeex rek pour am bunt waaye xaaru ci bagaar bu méttee méttee méttee méttee wala boog bagaar boo xamante ne day jeexal combat bi ñii moom seen combat bu jeexee dina neex lool dina indi débat ci dëkk bi muy diggante Franc ak ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 Garga 2 ak Mama Lamine journal sunu lamb ba léegi rek ci xaram ak Ibakan mi ngi ñuy wax ne instant bi daal combat ñoo ngi koy amal le 30 mai incha allahu rabbi waaye jàpp nañ daal bu ñu fa jógee wala boog jour ji moom dina nekk ay duel yoo xamante ne yu explosive lay nekk diggante Franc ma Garga 2 Mama Lamine Mama Lamine Garga 2 bokk Franc Tyson 2 comme ni ko journal suñu lamb bindee Serigne Mor Niang comme comme ni mu ko tàmm di defee noonu la xëyee suba incha allahu rabbi ci dimanche bi defee ko noonu. coup d'envoi saison de lutte avec frappe moom moom moom Boy Melax di doomu Mouhamed Ali ak ki nga xamante ne mooy mooy B52 Junior ñooy ubbi saison bi suba incha allahu rabbi ci dimanche bi grand combat Boy Melax jëf soog a nekk B52 Junior école de lutte Ndiaga Sarr Mama Lamine Boy Sey caatu Pikine xam si cosaan. takk ndeer yëmbal mbooloo Daouda Fall Balla Gaye numéro 2 wala boog Daouda Fall numéro 2 école de lutte Balla yaakaar naa ni lakkule rakkulees 2 bi la frontière numéro 2 jëli ma coor ak ki nga mooy bébélees Balla Gaye ak yeneen combat yoo xamante ne dinañ ci ñëw ci programme weekend bi ak lu mën a xew Serigne Mourou Niang moom incha allahu rabi na ko ñëpp jàpp suba mars moom mooy tijji saison de lutte avec frappe bi saison de lutte simple bi moom ba mu tijjee ba léegi gars yi ñu ngi wane seen bopp bu baax a baax a baax moo tax diggante samedi bi ak dimanche bi teg nañ ay millions yu bare bare lu toll ci douze millions trois cent mille moom lañ tegal mbër yi nga xamante ne ñoom ñooy bëre bëre simple bi diggante samedi dimanche ba lundi ki ci jiitu moom mooy Fallou Ndiaye yaakaar naa ni tey ci samedi bi la teg 3 millions 600 mille 4 millions lañ déggoon sax waaye nag xëy na frais d'organisation yeeg affaire yooyu noonu bu ci génnee la ñuy tegal mbëri mooy 3 millions 600 mille francs tey ci samedi bi ba léegi ci samedi bi ak suba ci dimanche bi rek Leewtoo production ñoom tamit ñuy teg 1 million 500 mill francs yóbbu ko nag ki dëkku làmb dëkku yax yu jóob yëg ni muy Joal Fadiouth un million cinq cent ñu déggandoo ko amateurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci petite côte bi un million cinq cent foofu ca Mbour samedi ak dimanche ba léegi rek ca Kaarang ñu nekk ca Saloum ak Île de Saloum yëg diggante Gambie Jànko production moom tamit teg na fa un million deux cent mille francs dimanche à gaal gi jag si ñëwaat rek tegaat fa 3 millions ci table bi mu mel ni daal ñi moom ay faw millions dafa mel ni moom dañuy fo ba léegi rek Dimanche à Adrien Senghor ba léegi rek Ngor Simon ak ay gaayam teg nañ fa li nga xamante ne moom mooy 1 million de franc CFA ba léegi rek Dimanche ak lundi ca Ndangaan Samb 2 millions mu ngi fay taxawaalu yaakaar naa ne ku fa dem boo fa wanee sa bopp rek di ko teg sa loxo ndax deux millions yooyu daal dafa réer di wër ko dafa réer foofu noonu di ko ko seet sa doole nag. ak sa mystique boo demee foofu noonu ca ndàngaan sàmm wala boog ca waa ca ndàngaan sàmm nga ko gañe formation yi nga xamante dañ koy defal mbër yi pour ñu nekk ay garde rapproché dafa mel ni pakala Tyson gën gi neew ordinateur ak ñeneen mbër tey ci samedi bi dinañ leen dinañ leen jox li nga xamante ni moom mooy seen i diplôme fële ca Mbour ak association bi nga xamante ni moom mooy association FILS ci njiital ki nga xamante ne moom mooy Bamba Mbuub ñu ñëw ci journalu record rek ba léegi rek dafa ñëw ci weekend bi nga xamante ne moom mooy na rayu nga làmb ji diggante dakaar ak ci région yi rek dafa mel ni moom 8 millions moom dafa mel ni Abou moom nee na 8 millions moom moo nekk ci diggante dakaar maanaam samedi bi ak dimanche bi 8 million lañu fi teg. Serigne Modou Niang ubbi saison comme ni ko Abou Ndour comme ni ko Abou Ndour waxee caaka fay moom ci lutte olympique bi dafa mel ni tey jii ci samedi bi lay dem fa la nga xamante ni moom moo di Tunisie. mu mel ni loolu la ñuy journal suñu làmb àndiloon ak journal lu record ñu bàyyi xel ñu suivre Lutte TV point com yëpp fu waay mën a nekk si àdduna bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di leen ziare di nuyu nag ñi nga xamante ni ñooy bàyyi xel li TV groupe Lutte TV ñu ngi leen nuyu bu baax a baax Omzo bu Garga tuuti yaay Sarr Serigne Ndiour bu Ousseynou di nuyu Mor jaxate di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Khadim Bamba caatu Lutte TV gëj naa ko dégg bu baax a baax Tigre Noir depuis Maroc ñu ngi koy béggee bu baax di ko ziare di nuyu tamit waa top 5 fitness top 5 musculation post carré la nekk terrain Ndiayeen ñu ngi leen di béggee bu baax a baax di leen ziare as groupe Lutte TV. Bamba Diop Arouna Camara Cheikh Bass borom Kër Massar Daabu Jam Téeri tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziare di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Fallou Ndiaye Argentine Fallou Sakho New York di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy góor gi Ndiaye doomu ndeyu Garga Mbossé ñu ngi koy nuyu Ibrahima lu tébi xaabu sita maa ngi lay ziare bu baax a baax di la ziare bu wér a wér Malick Ba Mamadou Lamine Seck depuis Brésil Mame Saliou Matar Bousso doomu ndeyu Abdou Darame ñu ngi koy nuyu di tamit ki nga mooy Mourtala depuis États-Unis moom tamit di nuyu Njaga Daabu Pape Serigne Mbacke Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëgge daal ak lu mën a xew di nuyu tamit Abdoulahat bu xarañ loo ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko bëgge di nuyu bu def di nuyu tamit Ramdan Faxuman Fëgala ñu ngi koy bëgge di nuyu Abdou bu xarañ loo doomu nday Pape Demba ak ñoom max groupe xew-xewu làmb ji groupe Lutte TV groupe Ndiaye production ak ñu commentaire ci journal bi yëpp Abdou Aziz Silla André Dione Souba Cheikh Bass Kër Massar alaaji alaaji Amin Diop waaw mu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax waa ana Lamine ñu ngi koy ziar di nuyu tamit ki nga xamante mooy ale Def United ñu ngi koy bëggee di nuy Abdou Ndongo Sylla Kër gi TV Demba Diop moom tamit commentaire na trois fois Modou John Xatab Diouf Demba Pan Braza Braza bëgg nañ la bu baax a baax a baax di nuyu Jean Olien Sarr Dambeng di nuyu tamit nga xamante ne moom mooy Daouda Fall Birane Mbengue Pape Cissé Mor Diakhaté Fatou Seck borom Papa Lamine nice Fatou kon nice ñuy jox ñëpp rendez leen di incha allahu rabbi